Assane. Mhm. jàpp nañu sa xarit euh, Serigne Cheikh. Euh, kii Coro Serigne Cheikh Coro. mu mhm. ngi noonu euh, kii a ngi noonu waa ji Modou wanaan ñu ko léegi Déthié. Mhm. gis naa sax am na ci benn vidéo boo xam ne affaire bi ñu tëll Déthié daal di defaat rotation. dugg ci otoom ak bëgg jàmm. voilà mi ngi noonu macha allah waaw loolu la respecté un kii rek mesure barrière la rek <laughs> parce que dañu aaye. léegi nag ci biir loolu lu dooy waar ci Sénégal avant barricade kër Ousmane Sonko bi siège du Déthié Fall bii la ñu njëkk manam eh, barricade dañoo dem pour def sen conférence de presse dembu ñu daal di koy dem fekk fa ay gendarme hmm. mais ñom ndeke ñuy nañ leen ba dem ci siège pire pure hmm. fa lañu ñu sen conférence de presse dañu nax gaay hmm. bañ fa joggé nak mënu ñu wona dugg koñu Ousmane Sonko gaasé nañ ñen ñi amna ñu ci japp Assane kon mel Ousmane Sonko waktu waxtu yi ñu wax ak yeen yakarna kërëm lay lay tabaske ci gatal euh barakaat bi mënu ñu ko dindi barakaat bi ñu ko mëna dindi moy xalé yi te xalé yi dindi wuñ ko ñom ñom ñi mënu ñoo dindi barakaat bi te ni leen leer ni rew mi ay conférence de presse ak organiser ay élection réglé wuko ko barakaat bi conférence de presse ak organiser ay dox ñaxtu réglé wu dindi wu ñu xam loolu bu baaxa baaxa baaxa baax a jëm boy ga dañ def ndànk ma ngi ñaanal sama sëriñ bi nak ndax sama sëriñ Cheikh Thioro Mbacke wax deug yalla kérok bu mu déggantee mu ne ma ah ba Assane man day waroon na la joxum xar mais né nga do tebaski kon nañu def mané ko sante yalla rek ba déwén waaye léegi nii kat amna na ku jàpp sama loxo bañ na ko ba mu ngi bëgg a damm léegi dinañ ci gën waxtaan incha allah. <laughs> lan mooy bañ alaaji luy loolu. <laughs> wiñ waaye nee far far nga gën dëkk. <laughs> ah waaw waaw ah alaaji incha allah aywa alaaji. waaw mu mel ni de gars yi démb. Euh, kër Ousmane Sonko bi nañ ko programmé woon ci yu bëree bëri le 25 le 25 daal. Mhm. ci ay gaz la mujj. Mhm. ak jàpp ñenn ña daal leen di denc ci barab. Mhm. waaw. yaa xam nga man damay ragal laaj. Euh, état bi indi laatal ñu li ñu dundoon te ñu bëgguñu koo dund. Mhm. maanaam actuellement euh, boo seetee avant que ñuy àtte Ousmane Sonko dafa am yoo xamante ni dañ koo wane ba jàpp ni doole jaa ngi fi mën nañoo téye waa ji te dara du yëngu tànte nañ ko benn yoon après gis nga li xew ci dëkk bi. Mhm. musiba naaru lay lu fi musa am am fi hmm. ci diirab vingt quatre heures ñu def lu raw la ñu defoon jëfale hmm. fii it ñëwaat nañ tegaat nañ usmaan Sonko dugal ko ci këram barikaade ko boobu bënn gëni hmm. euh, ñii dem nañ démb sànni nañ leen ay lacrymogène ñu daadee loolu mais dama bëgg pareen saa yi bi di jéem a xool population bi ñoo parce que tey boo jànkatut askan wi. Mhm. mën ngaa tàbbiwaat ci guuta yoo xam ni. Mhm. Euh, réew mi kenn ñaanut yàlla muy tàbbi ci yenn guuta yi parce que du kenn la jik parce que mhm. manifestation yi fi mujjee am son bu boo xoolee xam ni. Euh, sama yoon nekku ci amut maanaam ku ci yoonam nekk ak ku ci yoonam nekkut maanaam képp kuy kii rek yàqal yàqal nañ ku ne. te ku ne mënoon nañ laa yàqal. Assane mi wane na ma fi ab oto boo xamante ne bi ma nga gaare woon ca këram. Mhm. waaw ñu fekk ko fa dóor ko lacrymogène lacrymogène ba dal ci. waaw fii bi. Mhm. yaa ngi dégg. oto bu rafet sax ñu bari ñoo xamante ni bi tey taal nañ seeni bagage nañu xam ni. Mhm. diggante bi nga xamante ni moom la ne diggante la boo xamante ni bii tey bu état jàppee ni. Eh, am na doole da di fekk ni dafa am lu am doole luy war a xew ci kanam muy tabaski. Mhm. tabaski dafa am doole ci Sénégalais yi ñu am foo xam ne teg nañ ko fa. defe naa ni tabaski fi mu toll nii mooy li gën a gàllankoor euh, ñi nga xamante ni bii ñee seen woote démb bu ko gaa yi wuyu ji wut. Mhm. parce que tabaski la gaa yi jëm dëgg man. Mhm. waxoon ngeen ko fi lotu jour. waaw wane ni manifestation buñ ko defee. Mm. Euh, du am. Mhm. du kii man jàpp naa ne bu doon bu ñu organiser la sax dina am quoi. dina dina fees quoi mais bu dee bu ñu bu dee bu ñu autorisé la dina dina doon na fees. Mhm. mais fi mu toll nii am na ñu bari ñoo xam ne bii préparé nañ ñoom ñu ngi préparé tabaski ña nga ca leneen. d'accord léegi nag loolu bu ñu ko jaawalee ak li xew démb daan ne gis nga gars yi kenn faale wut waa ji. loolu erreur lay indiwaat bu ñuy tàbbalaat ci guuta goo xam ni musiba la. Mhm. parce que mën nañ ko jàngatee noonu. gars yi mën nañu tax non gis nga démb dañ ñëw dañ leen dóor gaz reetaan leen dañ leen door gaz ñu daw gis nga Déthié Fall dañ leen yi mu dëpp lii lii xam nga te loolu man defe naa ni manifestation yi fi gën a jaaxal sénégalais yépp amul benn leader bu ko fi coordonné mm-hmm. amut donc il faut que ñoom it ñuy bàyyi xel ci loolu balaa ñuy dugalaat Sénégal ci situation yoo xamante ni bi day ëppi loxo donc nañ xam ni euh, lii nga xamante ni bi mooy barricade bii dama jàpp ni war nañ ko mën a dindi parce que lii man jàpp naa ni wanewut doole état. d'accord mais man dama gis ni néew dooleem lañ ciy wane. d'accord parce que bu fekkee ni nit da nga ne tëj nga ko. Hmm. te ñemewoo ko yóbbu kaso. Hmm. kon ministre bi nee na arrêté arrêté bi la doole nee na bi la juge bi waaw ba noppi kon bu ko barricade xaaral arrêté bi kañ mais bàyyi ko muy dañuy bañ mu daw ah, kon kañ mooy wane ni waa ji dafa am noonu kay moom du daw xam nga xam nañ daw ñoom bu Ousmane Sonko dawoon gën a neex ci ñoom mm, bu dawoon non pour dem jigéen sor la Ousmane Sonko bu doon daw ñu xaal yoon jigéen <laughs> sor la jigéen sor mais jigéen sor Sénégal fépp Sénégal xam nga c'est que jigéen sor ak mu tabaskee jigéen sor ak mu tabaskee mais nañ ko bàyyi mu eh nañ bàyyi mbir mi waagaan Cissé nee na aimé leen live bi foofu ma naan aimé leen ko sax fa la ñuy yëkkatee jataay bi waagaan jërëjëf. dem cité góor gi ah. cité góor bi ñu demee maag ndaw si bi ñu fa awee. Hmm. laaj nañu pees oto ba pare après maag ndaw si. yaa ndaw san ma ne kon sama soxna si. yéen lu ngeen la wuti cité góor góor. <laughs> man leen man ne kii mu ne ma bu amul carte d'identité kay dañ koy téye. maanaam cité góor gi lu fa xew. ah non foofu ko fa aw nañ xam yow ban fan nga dëkk. fan ngay kii ah foofu la fa lay ñëwee non non dañ fa jaar rek. ah fa faa jaar d'accord dañ faa jaar di xol dekk bi mais dañ ko laaj carte d'identité moom waaw. pour nga meuna jall waaw. Ah, wa ci gën goor góor gi xanaa léegi ab la. Ah, man ko gis na ay taxi yo xamne dañ non gaay wacc ay jigen ak ay goor ko am carte d'identité ñu wàcceel. xaw ma fuñu fu ñu leen di yóbbu après góor gi kon legi ki na gis na de. wa foofu kay mom ma sha allah ñafa fa mom moom ñu ngi sante ba duñ ko def comme ville ay kon euh, ba. ay kon City ba du nek mm-hmm. legi ci kër goor gi. Euh, ah, city <laughs> city <laughs> Sonko la de. cité Ousmane Sonko la. cité ah legi loolu de mom ab kii la moom cité Ousmane Sonko de.